ñu comp as lëf ci li gën a fës ci yéenekaay yi bokk yi mbaa jàmm ngeen am ñun dey moom la ñu fanaanoo ubbil ma yéenekaay bi Moussa Bathily di njiital langu Gambie Action Party gi daal dina rek àddu ci audio bi wër ci mbaalu jokko yi après que jigéen di ci rek yàq saraxulay lu mel ni xeme dem rek ba leen di wooye sax xaj ngeen baal ma ci kàddu gi loolu koy ëpp na gar mi moo ko wax de looloo tax Moussa li di woote ngir rek yoon teg ko loxo moom Moussa Bathily mu teg ci ne moo ngi rek woo doomi réew mi yépp rawatina rek njiitu politique bi ñu ñaawlu rek kàddu yooyu ndaw si yëkkati jëmale ko rek ci kaw saraxule yi mu teg ci ne lu ëpp tuuru ndax rek bii mooy ñetteelub yoon ñuy rek wax wax yu ñagas ci rek kaw saraxule yi te nguur gaa ngi gis te rek ne tekk tekkaaral ci rekk fu mu toog bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi moom Moussa Bathily daal dina rek woo njiital police yi IGP ngir rek mu yebal ndawam yi ngir ñu topp waa ji ba gis ko ndax rek yoon def liggéeyam ubbil ma yéene kaay bi jàmbur bu Serekunda West Madi Cissé daal dina rek xamal yëglikaay bi ne jàmbur yi eh, a yàgg ñu amal rek extraordinary session eh, ñeel rek faatu juróom-ñaar fukki tuut tànk yi ah, sabab ci nag mooy jafe-jafe kidney yu ñu am rek te ñu ko rek ci paracetamol sirop bi ñu doon eh, jéggaane ci réewum India bu ñu sukkandikoo ci standard moom Madi Cissé nee na speaker bi dina rek jot bataaxal bi ci lu bañ a yàgg mu teg ci ne boobule bataaxal jàmbur yu bari dinañu ko rek sign moom Madi di wéy rek di xamle ne faatu tuut tànk attaques yi lu ñëpp war rek def seen yitte la doomi Gambia amatina ndam ubbil ma yéenekaay bi ñaari layokat yi maanaam loyas tabbu nañu leen ca biir attekaay bu ECOWAS di kuréel gi ëmb réew Afrique sowjant yi ak ki fi nekkoon jëwriñu yoon ak yoonal ci réew mi Marie seen ak rek international human rights lawyer bi di Guèye Sow tabbu nañu leen ngir rek ñu liggéey ca biir attekaay bu ECOWAS ca réewum Nigeria ubbil ma yéenekaay bi Mansa Soumaré ki fi nekkoon dawalkatu njiiti réew mi coowal diplomatique passeport bi ko toppoon ma ngay wéy ba tey démb ci attekaay bi am na beneen seede di wuyoo rek ci Bakary Suso janoo woon ak justice Ibrahima Diaité di xamal moom ak Mansa fu ñu jaar rek ba Mansa digoon ko li nga xam ne rek moo di passeport diplomatique nee na rek moom Mansa moo ko rek daal di xamaloon ne ko mën na koo defare rek passeport diplomatique ci noonu si la ko rek Mansa faye ko mu daal di dugal avance daal di rek dem këram ngir rek laaj Mansa fu mbir yi toll Mansa ni ko moo ngi rek ci kawam ci noonu ci la ko rek fay fayee xaalis bi de desoon daal di ko rek laaj récip man sa ni ko dinaa la rek jox récip su ma lay jox rek passeport diplomatique bi atte bi nag dina woy a euh, ci rek altine ubbil ma yéenekaay bi yokkatu katub ba Touré bi ma ngay sàkku ngir rek ñu bàyyi clientam bi ndax nee na Yankuba Touré dafa rek am ab malaanu kiiraay maanaam rek constitutional immunity moom ba Touré ci li ñu koy toppee nag mooy Fatou Koro Cissé Garmi no comment